sur 226 tests réalisés, 8 sont revenus positifs. Il s'agit de 3 cas contacts suivis par nos services, 5 cas issus de la transmission communautaire et provenant de Yeumbeul, Cité Soprim, Touba, Médina et Keur Massar. 13 patients hospitalisés ont négatifs est déclaré guéri. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. Comme annoncé hier, vendredi 17 avril 2020, le Sénégal a enregistré un troisième cas de décès lié au Covid-19. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille éplorée à toute la nation sénégalaise. À ce jour, 350 cas ont été déclarés positifs dont 211 guéris, 3 décédés, 1 évacué et donc 135 sous traitement. Le ministère de la Santé et l'Action sociale exhorte les populations à prendre les mesures de prévention individuelle et collective. maa ngi ñëw di leen di jottali lim bi nga xamante ne mbas mii ñuy tuddee Covid 19 fii ci Sénégal. ci gaaw bësu tey bii di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril 2020 ministère la santé et l'action sociale jot na saytu yi jógee ci laboratoire yi ci ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn yi nga xam ne saytu nañ ko juróom-ñett gis nañ ne am nañ doomu jàngoro bi ci yooyu ñett ñoo ci li nga xamante ne mooy cas contact. mooy cas yi nga xamante ne ñu ngi koy topp ci suñu euh, bërëbu liggéeyukaay yi ci juróom yooyu juróom yi nga xamante ne ñoom ñoo jóge ci transmission communautaire maanaam mooy li nga xamante ne kenn xamul ku leen ko wàll fan lañ ko jëlee ñu ngi jóge ci diwaan yi yëmbal Cité Soprim Touba Médina ak Kër Massar ci ñi nga xamante ne ñoo yor toomu jàngoro ji te nga xamante ne ñu ngi leen entré ci suñu bërëbu fajukaay yi fukk ak ñett bañ leen saytoo amatuñu doomu jàngoro bi wër nañu ñi nga xamante ne ñoo fa des seen wër-gu-yaram mi ngi am tan niñ leen ko waxee démb ci àjjuma ji fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril Sénégal suñu dëkk amaat na benn cas bu nga xamante ne dafa génn àddina fee sa ci Ziguinchor ñu ngi ñaan yàlla xare ko àjjana te ñu ngi jaale waa këram yépp ak mbooleem doomu Sénégal fii bi nga xamante ne mbas mii ñuy wax Covid 19 dugg na Sénégal boobu ba léegi ñu ngi toll ci ñetti téeméer ak juróom fukk yoo xamante ne dañoo am doomu jàngoro ji ci yooyu téeméer ak fukk ak benn ñoom wër nañu ñett. génn nañ ci àdduna benn delloo nañ ko dëkk ba mu jóge woon ci li fi des ci ñi nga xamante ni ñu ngi leen di faj toll nañ ci téeméer ak fanweer ak juróom ministère la santé action sociale bu Sénégal mu ngi ñaaxaat population sénégalaise yi ñu def lépp ba gën a di topp li nga xamante ne moom mooy tax du ñu am maladie euh, feebar bi jàngoro ji te tamit duñ ko mën a wàll kenn loolu mooy li ñuy wax démb ku nekk ci ñun nu wut masque bi nga xamante ne moom mooy tax ba du am jàngoro ji tere woon nañ bu kenn nuyooti ak sa loxo nee nañ na ñëpp di raxasoo ak ndox ak saabu ci diggante ñaar nit ñu toog nañu jël ci xàll bu toll benn mètre euh, te boo xamante ne tisooli nga wala nga sakkat nga teg mouchoir sa gémmiñ wala sa bakkan te boo paree nga sànni ko ci mbalit mi ñu ngi leen di gërëm di leen di sant wasalaam ñu ngi leen di wax tey ne. saa su la di am yu am solo yuy bàyyi ko fii ci Rafah TV ak Rafah TV ñëppay dañ agréer